alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. ne ne suñ état yi d'accord nañ trop ak euh, chef religieux parce que chef religieux yi ku ci tegu ci yoon bi nga xam ne moom lañ la yaakaaree rek ñoom ñu ngi lay xaar pour nga dimbalante ñoom parce que peuple bi rek moom moo ñor sëriñ si moo ñor tamit ñi nga xam ne ñooy jiite donc yu mel nii su xewee moo tax toujours dañuy jël sëriñ si di ànd ak ñoom ci ay xalaat ak liggéey ba nga xam ne yëpp su sottee rek danañu wax ne vive le Sénégal. comme tase bi ñu fi tasee nii ànd ak monsieur le ministre ñu gis ne ay doomam ñoom ñoo fi nekk donc lii li muy wane rek mooy ànd bi nga xam ne ñu ngi koy bëgg jëflante ak jeunesse bi. lii nag dama ci profiter pour wax ne jeunesse Sénégal jeunesse bi rek la ñu am jeunesse bi tamit Sénégal rek la ñu am donc ne wax yi bëri na waaye li bëgg rek mooy ne ñu dimbale leen te xam naa ni ñu ngi seet ay bunt yoo xam ne moom la def pour dimbalewante ak yal na yàlla dimbale Sénégal yal na yàlla dimbale jeunesse Sénégal mag yeeg ndaw ñi ba nga xam ne kenn fu ne rek droit yi nga xam ne am na da nga yëg na yaa ngi ko ne àddina bi yëpp moo jafe waaye yal na yàlla teg ñu jafe-jafe nga xam ne dinañ mën a vivre ci suñ diine suñ tariixa ni ñu ko bëggee te am nañ yaakaar ne loolu yàlla def na ko ba pare te du yàqu bari ci objet yi am fii. moom baax nga fi ñu war a jox sax. tant que doo bàyyi des mooy ko jox validé aussi li ñu fi génn yëpp mu validé ko. mooy mooy li ma doon wax mu ngi àddu ci texte yi ak kii yi fi def yëpp. donc démb rek démb rek dana ko. waaw boobu ba tey bàyyi wu ñu def yëpp ñu monsieur le ministre ban impression nga am gannaaw bi nga ñëwee visite espace bi nga xam ne moom la ñu jagleel Mawlana Cheikh Alexandre Ibrahima leen soo leen ñu bokk dafa rëy ñoo bokk suñu réew yàlla moo def loolu ñoo bokk suñu diine yàlla sëriñ yëpp ñu nekk fii ñoo moo def loolu tey soo ñëwee ci place bi nga gis bind yoo xam ne sëñ bi Baye Niass bind na ko tey nga xam ne tey c'est d'actualité ndax nañoo vision bu ñu amoon lecture bu ñu amoon yàlla moo koy def si nit en termes de sagesse en termes d' orientation euh, lii mooy Sénégal et avantage boobu am importance la ndax dañu am benn l'islam de tolérance parce que yëpp soo leen liiree lan la wax tolérance mooy nga mun a supporter keneen parce que même si kër su amul borom bu amul tolérance doo jubaa sa doom borom kër bu amul tolérance doo mun a jubaa sa soxna yi donc yàlla su defee lu bëri loo xam ne bokk nañu bokk aada bokk réew bokk ambition pour suñu réew bi loolu am solo la moo tax lu mu sëñ wax lu am solo la relation complicité buy am entre les confréries religieuses et le pouvoir du Sénégal parce que ñoom yëpp benn orientation la orientation bu mooy le bien vivre le mieux vivre pour tous les Sénégalais jërëjëf